taxaw di tag eh, Macky Sall yeen war ngeena taxaw di xol nit ñi di ma sonal di ma utal problème bama ma daw man ci Cheikh Ibrahim sama bay am lu mu liggéey ci aduna bi ma dekk bir senegal nañ waxante deug nañ waxante deug ndax lolu yeen war ngeen ko seetaan tay war ngeena tok di tag di tag Macky Sall ci lolu yeen ay Cheikh Ibrahim taxaw di ko naan defal nañu ni defal nañu laa ba pare ñu jël caatu Baay Ñas bi topp ko ba mu daw dellu Amérique ci loo xam ne ci ay dëgg rekk laa taxaw gis dëgg joteewu kenn dëgg laa gis di wax dëgg nañ leen waxante dëgg waaye te bàyyi suñ caaxaan yi nañ bàyyi suñ caaxaan yi nañ bàyyi li ñuy wax te gëmuñ ko ngir alal nañ xam ni ëllëg dañuy dee

ci kaw àddina kenn kenn kenn du ma noot ci kaw àddina loolu dama koy wax kenn du ma noot am naa kilifa nag sama kilifa mooy sama sëriñ Cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass su ma waxee léegi na ma sukkal nga raam wallahi lazim ma raamee ba fu mu bëgg su bëggee yeeg sama kaw ma boot ko ndax mooy sama Cheikh Ibrahim te Cheikh Ibrahim Niass rek laa bëgg lumay kas kaas du dara limay xex du dara lumai xex yeb pour njeriñu lagla la ak njeriñu merina bay gi ma dekk lenen, rek lay kaas kaasuma lenen soxlawuma lenen dama bëgg ñu xam suñu bop xam ñun ñoy ñan xam kan moy Cheikh Ibrahim ak lim ñu liggéeyal ñu bayyi di tag makki di wax naan Medina Baye lim ñu defal ak lim ñu defal lan la ñu defal na kenn taxaw na Macky sàll jox nañu ñun ñun njabootu Baye gi lan lañ ko mus a lekkal man de cent vingt mille lañ ma mus a jox cent vingt mille yi ma delloo ko papi may ma yaa ngi oote cent vingt mille lañ ma mus a may cent vingt mille yi ma delloo ko te moom lañ mayoon njabootu Baye Niass yëpp ci gàmm wax ma ban njabotu Baye ku mën taxaw nañuy bayyi nañuy bayyi di jabliser di wax na Macky mu ngi indi li mu ngi indi la ci merina gelabok mu ngi def musumoko gisuñ ko man de ci njabot gi la bok gisuma ko gisuma ko gis musuma gis alalu Macky ci njabot gi la bok musuma gis alalu barke Cheikh Ibrahima sama gay rew mi ñuy wax senegal nga xam ne nee nañ quatre-vingt-quinze pour cent yi ay musulman ci biir quatre-vingt-quinze pour cent yooyu li ci ëpp mën naa ne dañoo bokk ci ay tarixa ci réew moomu koo xam ne dafa bokk ci ña samp tarixa ñu koy woowee bàyyi ñas nga xam ne dafa bokk ci symbolu Afrique bokk ci symbolu Sénégal di fierté Afrique di fierté Sénégal waaye di fierté der bu ñuul di jàmbaari lislaam liggéeyal Senegal, liggéeyal Afrique liggéeyal yalla suñu borom fi ba aduna bi yépp xam nga ci lolu mu bok ci ñi ñi wax ñi taxawal ay tarixa fi ci senegal tay ji koku domam ku ñuy wax MC Niass mom lañuy bundu xadar ci bir rewam ba mi di dem ci ay rew nasaran. yéen est-ce que est-ce que est-ce que ngi imaginer li nga xam est-ce que ngi li am ni ngi koy xolat diko ko bu baax ci booba temps ñoom ñu ngi wëlbatiku di dem ci ay kilifa diine di leen diaboliser ak benn opposant naan leen bu fi toogee daf leen fiy jëleeg bu fi toogee da leen di def nii da leen di def naa te ki leen di wër di leen wax loolu moom mu ngi def noonu ay kilifa diine ci biir réew mi parce que MC ñas mii kilifa diine la Baye ñas mooy way waajuram te tey jii ci lan lañ ko bëggee jaayee doole mooy dëgg gum taxaw wax ko léegi nag yamatuñ ci citoyen simple yi ñun citoyen simple yi waaye dañuy dem ba ci kilifa diine yi di leen bunduxataal ci réew mi ba ñuy daw di génn parce que moom dafa wax ni carrément mën dama daw pour sauver bakkanam léegi loolu ci réew mi ñuy woowee senegal la xewee te ñooñu ñooy waraat ci kër diine yi naan jàmm ak salaam lañ bëgg ak nangam nangi démb dégg ngeen fi bërki démb Antoine Diome dem Yoff naan réew mi jàmm ak réew mi salaam ndax lii mooy jàmm fekk kilifa gu toll ne Baye Niass ak li mu liggéey ci senegal ak li mu liggéey ci diine lislaam nga jël doomam di ko bund ba muy daw di génn di dem ci ay réew ay réew nasaraan yéen yéenay taxaw ngeen ne Ousmane Sonko bu fi toogee kilifa diine yi da leen di def nii wala daf leen di def naa waa yéen ñi nga xam ne yéenay jàppale waa nguur gi ci ci manipulation yooyu ana ngeen yéen foo leen nekk xanaa yëgoo leen ne MC ñas mii dañ koo bundu ba mu génn MC Niass xanaa nekkul kilifa diine MC Niass xanaa Baye Niass du woy juróom góor yéen ñi doon jabalise génnaat leen ngeen wax bu fekkee diine moo leen ñor bu dee yoo yoo yoonu murit tiijaan xaadir laayeen ñaseen yoon yooyu dañ dafa bokk ci li leen ñor te da ngeen koy protéger boo leen gisee ku bokk ca yoon yooyu ñu def ko li ñu def MC Niass nii war ngeen a génn wax boo leen gisee lu mel nii war ngeen a génn wax lii mooy wane na yéen ñi nga xam ne yéen ay wër di jàpp jaboli Sonko ak di jàppale nguur gi ci diabolisation bi yéen ñooñu ay naa naafeq ngeen. parce que dëgg bu jotee leen koo war a wax mu leer ngeen wax ak ki ngeen war a waxal dëgg waaye déedéet ñu ci bare ci yéen seeni poste moo leen ñor ak seeni poste yu ñu leen di jox. ak yu ñu leen di boqal ci suuf ak yeneen ak yeneen looloo leen ñor waaye bu doon dëgg moo leen ñor lii di ngeen ci wax. ndax MC Niass mi kenn ëppale ko ci Sénégal du man du président du ministre du député kenn ëppale ko ci Sénégal ndax baayam liggéey na ci réew mi loo xam ne mbedd mu ko neex dafa war a jaar te daa war a siggi te moom it deful ci réew mi loo xam ne daa war a romb ci benn mbedd di sëgg. MC Niass saagawul kenn MC Niass waxul kenn lu ñaaw MC Niass musul génnee kàddu gu ñaaw di ko teg ci deru benn doomu aadama dafa gis loo xam ne kompa loolu ay tappale kese la. mu fexe ba leeral dëgg gi ngeen bëgg koo jaay doole pour lan ana ñi nga xam ne ñoom la bokkal deret ana ñu ana ñi nga xam ne ñoom la bokkal fa mu bokk mooy këru diine googu ana ñu lan moo tax ñu koy seetaan ci lii lu tax ñuy bàyyi ñu koy bunduxataal ba muy daw di génn lii waxuma la ñun jàmbur yi waaye ay mbokkam ñoo ci waroon a njëkk taxaw MC Niass warul a dem fenn fii la waroon a toog ci réew mi di doxi ay soxlaam comme ñëpp. mais di ko jaay doole ba muy génn loolu waruñu koo seetaan ñun ñun nag bu fekkee Sénégal nii leen koy jàppoo nii ku sa ay ñëw rek bay bu nga xam ne yow ñëw nga ñii toog di ma seetaan amaana am na lu ñuy xaar ci man te loolu du ay foo ay reetaan ak ay caaxaan kese di leen xamal li xew ci réew mi da cee bokk di leen kaasal seeni droit da cee bokk looloo tax ñuy def ñuy jaayante waaye bu doon bëgg lu yomb ak bëgg xaalis kese mën nañ ko defee ci beneen façon mais ñooñu noonu tey képp ku ci am jafe-jafe sénégalais yëpp dañoo war a jug taxaw niir la ba li bañ xam ne xeex bi nga doon xeex ñi nga ko doon xeexal tey jar nañ ko waaye kenn warul toog di seetaan kenn MC Niass waroo dem da war a ñëwaat fii ni ñuy protéger Ousmane Sonko ñu protéger la ko yow da ngaa war a toog parce que fii sa baay dafay bokk sa baay dafay liggéey loo xam ne yow waroo fay xat ba fiy génn génn bi nga génn nii. xëy na amaana naqar amaana jàmm ñàkk jàmm moo la fi génnee waaye ñun bu ñu sañoon nga dellusiwaat te nga xam ne bu soobee yàlla boo dellusiwaatee dinañ la protéger incha allah. am réew nag bu ñu demee ba kuy dox ci dëgg moom yaa ngi ci danger bay boo nga xam ne ay caaxaan commencé na fa bari bu dee ku fay dox ci dëgg yaa ngi ci danger booy dox ci dëgg say bokk lay njëkk a avertir y'a problème quoi y'a problème parce que fii dëgg léegi erreur la dëgg deli fi ku yaboo nekk ci ay caaxaan yu métti looloo la fi may jàmm. bañ na ko ba nit ñi nga xam dañoo bëgg a xaalis léegi sax dañuy dem nekk ci ay caaxaan di am xaalis bàyyi nit ñi bàyyi ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw moom ñu ñuy kompaloo di pàccoo suñu milliards baadoole yi di gën a torox bu ko defee ñu ne kenn bu mu ci wax parce que ku ci wax ñu jàpp la. gis nga réew mii yéex yàgg dool ay élection koy defar dool watee dool wàcce kenn dool yéegal kenn yéex yàgg révolution rek koy defar amul leneen lu mun a defar Sénégal.